أيدرا دفنا ديم بياجي وانت عثمان بن عفان والله سمام جوجو غا خمني بوني سيدنا محمد ني ابو بكر ني عمر عثمان مو جاي الحياة بسم الله تفسير عبد الرحمن الحياء زينة والتقى كرم وخير المركب الصبر كون نك نيت كو ام كيرس رك داي ام تار كو ام كيرس رك داي ام تار كو ام تار رك دا فا فك دا فا ام كيرس تار نك تي الاسلام mooy nit ku am kersa xoolal jëmm yu tedd yooyu nga xamante ni ñoo fi jaaroon ñaar ñi nga xamante ni ñun ñëpp dund nañ leen muy kan muy Cheikh Salih Mbacké muy kan muy Cheikh Alhaji Abdoul Aziz Sy Dabakh xoolal Serigne Saliou musul sàllalu doomu aadama boo dee xale loo tuuti tuuti tuuti tuuti bu dee jigéen la mu ne soxna nogay du ko tëb mug naan ko nogay te mat na la de bu dee xale ngay ngañ loo tuuti tuuti tuuti sëñ ngañ lay wax ndax lan dafa am ku ma nettali benn bis kooku ci ay taalibeem la woon nee na sëriñ Saaliw dafa dëkkoon mbuur nee na benn bis dafa tàmmoon saa yu reeran ba pare génn doxantu ndax jikkoy yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam léegi nag comme bu daan doxantu day am ñu mu àndal ak kersa gi du xool mukk ci kanamam wala xool ci kaw déedéet ci suuf rek lay xool di dox di dem <laughs> gaa ñi àndandoo ak moom bis boobu nag ñi nga xamante ne ñoo ko waroon gunge ñëpp dañu demoon ci benn mission mu yónni leen mu reer ba pare génn ne day fudd tànk yi bu mu génnee làmp yi jàpp ko mu gëlëm xàmmeetul këram wër wër ba xaw a sonn nekkate boobu yàllaa ngi koy orienté di ko am lu mu ko bëggu won mu ñëw ci benn kër ne dama doon laajte kër Saaliwu Mbàkke moom mooy laajte de xam nga kilifa kenn du ko sàllalu laa tarfau aswaatakum fawqa sawti nabi kon nag ñooñu bu ñu yoree wàccuwaayam kenn waru leen sàllalu alors donc moom ci boppam mu taxaw ne dama doon laajte kër Saaliwu Mbàkke rek waa ji ne bërët ci kër jóg génnee daanaka mel ni dabbush ñëw ne ko na njëkk tey na mujj tey koo koy Cheikh Salih Mbacké koy sang bu tedd bi kookoy koy doomu xaadimu rasulullah dama ne na njëkk tey na mujj tey nga di ko sàllalu xàmmeewu ko de mu ne ko baax na mu ne ko kaay la fan la dëkk sol mbubbam yem këram ne ko kër gi mooy kër ku tedd ki maa bàyyi nga xel ci lim la waxoon góor gi ne ko baax na mu ne ko baax na mu dugg Serigne Saliou ne comme nag moom toll na fii ci xolu nit ñi ba kenn nanguwul ku ko sàllalu kon moom dootul sàllalooti benn doomu aadama loolu yàgg na lu jiitu muy nekk xalif général des mourides kon loolu da ngay xool Serigne Saliou bul xool rek kéemaan gi bul xool rek xam-xam bi waaye nag xoolal tamit ci tedd ngay jikko yooyu nga war ko mun a roy mu mun a defar sa dundeenu àddina moo waral moom ker kersam daf ko amoon ci ñëpp noonu tamit lañ ko ci Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz ci Dabakh motax bimu genné adina waji ko defal marsiya bi ne laqad ghaba bahrun aylamun mutawarrun man qawluhu wal fi'lu yastawiyani muné laqad ghaba sukhna bahrun ge bahrun aylamun mutawarrun muné moy borom xam-xam bu sàmm ba amone kersa lol muné koku de man qawluhu wal fi'lu yastawiyaani mu ne kooku ay waxam ak ay jëfam dafa am harmonie mooy lépp loo xamante ni moom moo nekk ci biiram moom la daan wax lépp lu mu doon wax boo ko vérifié moom moo nekkoon ci biiram ndax lan am kerse ba boo ko fekkee moom kese mu toog ci néeg bi ak yar ga ak teggin ga ak kersa gi nga xam ne ruus na boroomam bu toogee ci ndab ñi muy lekkandool nga gis mom en tant que xalif man mi sumay tok duma duma ma du ma téye bool déedéet damay yor ni diko lekke num nu mu ma neexee waaye alaaji Abdoul Aziz Sy nga xamanteni c'était le patriarche xalif général xam-xam ci mom la yem juddu ci moom la yem bay rek darajak tur lépp ci moom la yem jubóog boromam yooyu waaye boo ko fekkoon mu toog ci bool ba téye bool bi ak ni koy téyee ak yar gi muy àndal ak teggin bu muy àndal fa tabaarakallahu kon kersa googu tafsir war na dellu siwaat ñu roy ko ci mag ñu baax ñooñu xaalis man macha allahu haydara cheikh alaaji da baax dabbaax yàlla nañu yàlla fayal ko mhm. yàlla na xare ko aljana yàlla na yàlla taas ñu ci barkeem amiin wax cheikh saalihu mbàkke cheikh alhaaji mouhamadul habib rakkam yal na yàlla subhaanahu wa taala moom it dolli leeram yal na yàlla xare ko aljana yàlla taas nu ci barkeem dégg nga ko ca wayam wa fa baxin baxin ya sayidi wa malazana man kaana xaatimu asri wal baari ajaban bi bidaati malikin wa imamina niamal fata man xaaza kulla faxaari ñoo bokk ndey ak baay te dañu ni bu ñu nee diw baax na nañu laaj ndax mbokk yaa ko wax kon Serigne Habib bu seede Alaaji Abdoul Aziz Dabakh mooy wane ni baax na ajaban kéemtaan ببدعه مالك تي دوغي تومام سيدي حاج مالك وامامنا كي سونو نجيت من نعمه باخنا اكا باخ الفتا تيم سيدي الحاج عبد العزيز من ني نكو لان لان لا باخه لان موي باخ تي موم ملي من هذا كل فخاري képp lépp loo xamante ni nit bu ko amee dina ko puukarewoo dina ko tiitaroo moo xam juddu la moo xam taar la moo xam ñëpp rus la la moo xam jikko yu rafet la lépp yàlla dajalee na ko ci Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Dabakh te taxul mu tiiroo tiitaru boppam ab jaamu yàlla Chérif sax mm-hmm. war nañu xoolaat réew mi mm-hmm. parce que nag maa ngi koy wax fa tabarakallahu barki démb ma ni man li ma jaaxal mooy da ngay gis ci internet bi wala nga gis ci tele bi ay mag ay kilifa yoo xamante ni ñii ay mag lañu parce que bu ma nee mag rek mooy koo xamante ni majeur na. Mhm. ñu ni déet na waaye nga mu ñeen fukki at. Mhm. am na loo xam ne pour buy néeg la waaye du pour télé. gis naa ay yennat yoo xam ni maa ngi koy gis ci média yi. Mhm. moo xam ci télévision yi la moo xam ci internet yi la ay yennati photo ay yennati vidéo yoo xamante ni léeg-léeg nga koy defal dagan na de. léeg-léeg nga gis koo xamante ni mag la takk soxna. ñu wane ko ci benn internet wala ñu wane ko ci télévision mu koy fóon mhm. moo dagan na de wax dëgg yàlla dagan na góor gu ne dagan na ci yow nga fanaan nga nga fóon sa soxna jigéen ju ne dagan na ci yow sa jëkkër foon la ak nga foon ko lépp dagan na waaye loolu pour biir néeg la mm-hmm. loolu kenn du ko wane mm-hmm. def ko ñu foto ko génne ko ñëpp di ko gis waa xale bi ko gis te xamul lan ngeen séq nag mm-hmm. xale boobu defee ni mbir moomu noonu la loolu moo fi jëlee kersa léegi parce que dama la wax ni la faaqidu shay'in la yi ñi war a jàngale bu fekkente ni ñoom ñoo jàngatul ñoom ñoo yarootul ñi war a wane yar fekkente ni ñoom ñoo amatul yar fuñu jëm te yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa melni lam la mu waxoon dikk na Uzayfat ibnul Yamaani mooy nettali nee na dañu tok ak sahaba rasulillahi sallallahu alayhi wasallam sahaba yep wër ko muy waxtaan ak ñun ba mu yàgg neena mu tàmbali joy ba muy joy rek Xuzayfa nee na ma yubki ka ya yubkiika yaa xayral anaam fa qaala kayfa laa abkii wa qad yaati ala ummati يفقد فيه الإسلام يتركون الصلاة ويمنعون الزكاة ويطففون المكيال والميزان ويجور السلطان ويحكمون بالباطل والخسران ويشهدون الزور ويشربون الخمر ويفشون اللواط والزنا بحديث بجيخ وحذيفة نينا يونتبي صلى الله عليه وسلم dafa دي جوي بياق سكين بطو يقب حتى tooy اللئام نخ أي li نينا ndax نينا rangooñ يا رسول الله لنجي جوي لمدون لن مولا جوي jooyloo wax ñu ko bu jaree jooy ñu jooy bu jarul jooy ñu jooy jooylu ndax sa jooy yi xusayfa nee na sang bi sallallahu alayhi wa sallam ni ma xusayfa lu tax ba du ma jooy suñu boroom wan na ma loo xamante ni noo def ma jooy ndax damaa yërëm ñuy dund ci jamono jooju mu ne ko ñan la mu koy limal jamono ngi ñëw mujj jamono l'islam turwee fii ne waaye jullit pire pour nga gis ko du yomb ndax julit nak dafa am nu wara mel xamna dinañ ci ag qad aflaha mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un julit non lay mel ba mu ag waye huzaifa neena yonent ba ngay lim sallallahu alayhi wasallam bolé na ci yamu don lim sallallahu alayhi wasallam non nako jamono joju wax lu dul deug day yomb non nako jamono joju buri duñu mandu waye non na jamono joju la tax ma yërëm ña ci dundu moy kersa fay néew xale yi duñu am kersa jigen ñi duñu am kersa Chérif jeeg boo xamante ni day sëy ci kër doon ponkalum jëmm bu toogee ci digg kër boroom këram toog ay surgay boroom këram toog nit ñi di dugg ak di génn mu sañ a jël sëru malikaan taraxlaayoo ko toog ci digg ëttu kër gi awraam yépp nekk ci biti waay waay bu doomam màggee ba noon ponkalum jëmm bu solee benn taay baas xam nga taay baas bokkul ak tay baas hmm. tay baas mbubb la taay baas pantalon la hmm. bu solee taay baas mooy pantalon boo xamee ni baaba dafa gàtt hmm. coup bi day gàtt bu ko defee awraam dina ci biti moom xale bu jigéen ba mu génn ñu naan kii nu mu mën a sole lii doomu jullit nu mu mën a sole lii ana kersa ana nangam fekk yaay ja mu bàyyi ca biir moo waroon a seet boppam parce que kersa war na feeñ ba ci col ji déggoo yàlla subhanahu wa taala yaa yuha nabiyu moom la ko adressé mu ni labbayka mu ni ko qul li azwaajika waxal ma say soxna wa banaatika ak sa doom yu jigéen yi wa nisaa il muminina ak jigéeni jullit yëpp نين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يوزين وكان الله غفورا رحيما نين يسول تول جوت نخت جلت دفا بوكو تي نيو كوي خامي وي تول كون نك دفا ورا ديم تي كيرسا با تي فوتو يي نيو واني تي انترنت بي با تي ايميشن يي نيو واني تي تيلي بي امنا تيلي يو خامي ني امنا ايميشن يو خامي كيرورو كو واني تي تيليفزيون تختي ريو مي ني نيك نك waxuma sax réewum diine la waxuma réewi lislaam la waaye réew la moo xam ne réew la moo xam ne seen aada dafa baax dañu mas di am kersa fa tabaarakallaahu mm. Chérif mag ñi demoon nañu ba am kersa ci kersay romb sa njaboot di dugg ci toilette mm. da daan am lu tuddee bañ gàcce mm-hmm. booba bañ gàcce mi mooy ne ci diggante toilette bi ak nit ñi da ngay dem ci gannaaw pour dem toilette ngir am nga kersay njaboot gi xam ne ci duus bi ngay dugg kon nag kersa yàlla na ko yàlla delloo si ci réew mi yàlla na yàlla def ñu dëggi dëgg jullit Chérif lii la ñu indiloon mbokk yi li ñu am امون تي وقتو جيخنا يال نانيو فكي سوباك جام امين يا رب بمحمد وببنته وببعلها وبديه مصبتين اعلى من الهدى وبصحبه والتابعين لهم فهم ساداتنا اهل المكارم والندى جيرجف خالي عثمان